puudar noonu a lan potal ma kii. wootal ñu dem man fi laa dëkk. delloo nga delloo fu nga jëlee woon. seet. delloo fu nga jëlee woon man mënoo ma jur. delloo ma du deñ delloo fu nga jëlee woon ma forka. delloo fu nga jëlee woon delloo ko rek moo gën a yomb. waaw bàyyi la bàyyi la ñu may sàcc ko tey. delloo ko a yomb delloo ñu moo war a lan wootal ma kii wootal ñu dem man fi laa dëkk delloo nga delloo fu nga jëlee woon sët delloo fu nga jëlee woon man mënoo ma jur delloo du deñ delloo fu nga jëlee woon sànni ma forka delloo fu nga jëlee woon delloo ko rek moo gën a yomb delloo ko rek ñoomee sàcc oto yi delloo ko rek delloo ko demal delloo fu nga jëlee woon delloo ko rek voilà yow xoolal nga sànni koy dogo dogotee <laughs>